seen revue de presse yéen a ngi kay ak El Hadj Ahmed Aidara Macky Sall day ah, ay erreur rek lay def te erreur nag bu am rek am na erreur la erreur la tribune yéene kaay ne fal bi nga xam ni daal dinañ koy fal nag benn avocat day agence judiciaire de l'État ah, waaw dama ne la la faute présidentielle giraawaali gu la président Macky Sall def nag laa la wax ah, waaw waaw parce que nag bii mu daal moo mooy bu njëkk ab avocat daal di jiite kon agence judiciaire de l'État gi lée dëkkër googu li nga xam ne mooy liggéeyam day bu nguur gi amee ay jafe-jafe waaw wàllum tribunal la la ci biir taxaw maître Moussa Bokar Thiam moom mi nga xam ne kon socialiste googe daal di transhumé kon dem APR waaw moo daal di remplacé nag Antoine Diome mi nga xam ne nag moo nekk ministre de l' intérieur maître Moussa Bocar Thiam moome dañ koo jox kon wàllam ca tong-tong nga neexal la léegi quotidien ne waaye ñetti ministres yi ma leen di bëgg limal day dañoo rëcc dee dañ ah a dàq nag laa la wax 24 heures yéene kaay ne yettu Macky Sall ba day ah ñi nga xam ne dañoo mën seen liggéey waaye xanaa ñooñee rek kon la ñuy lu moo ma jaaxal da ngaa lañ lay jin kon dëgg la eh leen ne xam ne maanaam ñoom dañoo yëkkati liggéey ba ca kaw liggéey bay bëgg a dee def lu baax waaw ñoom daal la seeni sox di topp presse lé di leen saagaaka xas Matar Cissé xam na ca dara last en tout cas lii xëy ni la mooy gars yi dinañ fippu de mar di taali non boo ni ñuy waxee sax xam ci fipp la ñu jëm parce que Aly Ngouille day waaw nee na sama daal lay déglu rek fu woo ma wuyu moom sama réew ba day mooy déclaration Aminata ne en Ndiaye moomee mimi du jàkkaarloo ak Idrissa Seck de ah. dama ne la passation de service ba du am Idrissa Seck daw mar di taali yéene kaay Cheikh Omar Ndaw bi ne Idrissa Seck daa daw Mimi Touré laa la wax ah. te gis nga Aminata Tall keroog ba muy jógee conseil économique ok xaaru fa Mimi Touré de passation de service amul de pourtant Mimi nag bëggoon na de service ba de dama la Idrissa Seck daa Mimi Touré laa la wax moom Mimi Touré moomee waaw jàppale ne tey ca ajuma ji bu 11h def nag déclaration bu rëy déclaration coalition de ak tàmm wax waxet Idrissa moom daa tàmm wax waxet nag laa la wax adi xaar situation situationniste la parce que Idrissa Seck mi la moo fi doon kaas ak a ñaxtu de ci conseil économique social et environnemental googu eh. ndax xaalis ba cay dem kon dafa bari kër googee lañ ko jox ay bi man sa talaakrous coalition Jotna ma day jëm ak sóobi li waaw nee gis nga Idrissa Seck mi mi laa la wax na seen der Ousmane Sonko ak ñama àndal yamu ca parce que fal la Antoine Diome ca ministère du intérieur d'accord duñ ca dee déedéet yéene ñoo ànd ak Idrissa Seck day idi 2019 waaw ña ngay rek ña ngay quitté coalition ba un à un ah, ah waaw parce que ginnaaw Bougane Gueye Dany docteur Babacar Diop Cheikh Bamba Dièye Papa Diop njiital bokk gis-gis bana génn na idi 2019 last Papa na Idrissa Seck waaye Alaaji Malick ma taxaw wax waaye bu ma wax loo balaa ñu naan dama far wala lii ak lii ñang ñang patiti patata dama ne leen Idrissa Seck day politique laa la wax te Idrissa nag waa adduna bi yëpp ne ko am courage politique la <laughs> Mamadou Amar Ndiaye ne waaw parce que Idrissa Seck jël na risque ci loo xam ne ñu baree bari duñ ci d'accord lu impopulaire ñi nga xam ne ñoo ko woote leen dina am ñoo xam ne dinañ ko bàyyi di électorat am bi dina am ñun ca ñàkk lii mooy wane ne Idrissa Seck mi la benn homme d'état la ñaar ku am courage politique la bàyyi leen Idrissa Seck day ne moom la tuddee ñaareelu dil ci diggante Idrissa <laughs> waaw premier dil ba dil Macky Sall ne ko ma ne pas ngir ñu bañ a taal mi ma noppi loolooy dil bu njëkk ba ñaareelu dil bi nag mooy 2024 Macky Sall ci boppam dana organiser Idrissa Seck mi lay ay élection ngir Idrissa Seck nekk seen candidat é eh waay Samba waaye bañ yegg ca walaay danañ xam ne yàlla du Ahmed Suzanne Camara day ci bëgg li waaw nee xam nga 20 pour cent yu Macky Sall ya ñun waa APR dañuy gagné kon premier tour élection présidentielle ràngati na kon opposition ba Walf Fadjri ne gàkkoo ngay dem de dama ne la alliance politique waaw Malick gàkkoo ngay dem ca Macky gàkkoo ngay dem gàkkoo ngay dem gàkkoo ngay dem gàkkoo ngay dem gaa ko ngay dem les si ko yéene kaay tribune yéene kaay ne dama ne ay député ci boppam ñoo ko jox carte blanche ngir ëllëgu politique am muy Alaaji Malick Gaye Aïssatou Sabara ak Aminata Kanté 24 heures yéene kaay ne gouvernement bu bees day waaw waa Fra naxarul nañu ko li ñuy tuddee tong-tong national dëkk bi daal lañ jël def ko comme nagum tam xarit di ko tong-tongee kii Mari Sagna ak ñama àndal waaw nee nañu conseil économique social et environnemental a jëlee gi di dundee ni lé lañ war a loolay dëgg Abou président mouvement réccu falmach ah, nee gis nga suñu politiciens yi lé dañoo jël otage di nax askan mi laa ni subaak ngoon guddeeg bëccëg critique yéene kaa ne en tout cas bennoo bokk yaakaar day juróom-ñetti at a waaw waaye mbir ma jeex na de parce ko xool ni Macky Sall taxawalee gouvernement bi xam ne bennoo bokk yaakaar jeex na le témoin yéene kaa ne ginnaaw nag ba ñu caxa-caxatee kon permanence su PDS suñ politiciens yi ñoom politique rek politique rek waaw nit ñaa ngi dee xiif fubil vox populi nañu wàllum lekk gu bon nga xam ne amul valeur amul vitamine waaw Sénégal daal xale yi nga xam ne kon ci juróomi at la ñuy gën a màgg téeméer boo jël juróom-ñaar fukki yëpp dañoo feebar dañoo animé lekk gu bon ñàkkub ana Marème Faye Sall maman Teresa critique yéene kaa ne en bu bees bi ñu defar day Marème Faye Sall kenn ñemeewu koo dara waaw yi nga xam ne sax leen waaw doon nañ jéem a jokkoo ak Marème Faye Sall waaye mënuñu koo jot Marème kay yoon dani pat <laughs> waaye Marème Faye Sall ak lum ne pat pat pat pat pat pat pat pat pat daal di noppi ah pétrole bi war na cee wax de parce que suul gaz ko teree xeeñ boole ci jëfandikoo ay kàddu yu teggu niwul mel ni saaga ci kaw beneen magistrat boo xam ni daf ko accusé woon xëy na wàllu corruption xëy na loola tax mu daal di fayu moom itam ci weddi kooke tax mu jëfandikoo kaddu yu jaaduwulay li tax ñu blaame ko ni ko la nga def jaaduwul ka ca des nag muy ka ka di Yaya Ja euh, Amadou Yaya Ja moom euh, lañ ko tuumaal mooy wàllu euh, rétrograde rétrogradation dañ ko delloo ginnaaw tuuti ci accusation corruption yoo xam ni mënta indi ay preuve yu leer nañ ca tuuma yooye mooy li tax ñi rétrogradé ko ci Euh, li nga xamante ni bi moom euh, la defoon ni ay kàddu ak métier bi nga xam ne ci la nekk opposition bi nga xam ni ça fait longtemps daal dinay euh, abandonné li nga xam ni mooy tool bi tool politique bi ak ñi nga xam ñoo di activistes yi ak ñi ñuy wax ay droits de l'hommiste loole bu ñu sukkas ni ci professeur Iba Sané na mu jàpp moom jàngalekatu chercheur boobee nekk ca université Gaston Berger bu Saint-Louis nee na opposition bi dañu manque leader leader buy euh, buy dëgg-dëgg lépp opposant war a laaj ci anam gu des na am ci moom confiance ñu teewlu ko ci téléphone Fatmata Diop champ politique bi ñu ko bàyyi mouvement citoyen yi mooy activistes yi ñoom ñooy bougé ñoo yëngal dëkk bii et léegi opposition boo xam ne classique boo xam bu war a ànd ñoom ñëpp këcceendoo dóorandoo ñooñu dañuy bàyyi sa ku nekk créé sa mouvement mu lokk di ko bëre boo xoolee ñoom Thierno Alassane Sall dañu am seen bopp nga xool Karim xam Sonko mu ne anti système nga ñoom euh,

dañu doon def nag benn marche démb sabab bi mooy nii na ku war a taxaw ku nekk na nga taxaw ba ñu dakkal migration clandestine bi nga xam ni ay ndaw yu bëri ñoo ciy faatu waaye ca marche ba ñu doon def dañu leen faa fekk arrêté leen donte bàyyiwaat nañu leen waaye teewul ñu dénoncé ndax euh, lu mel nii ku nekk ci war a taxaw dañoo mujj sax ni mbaa du nguur gi moo seetaan lii ba muy am ba bakkanu doomam yi di rot ci géej gi. Bakary Diémé euh, moom mu ci yëkkatee kàddu mooy bokk ci responsable ndaw ñooñee ñu teewlu ko. ay doomu Sénégal ñoo ngi jël gaal gi ba léegi di si dee te loolu c'est anormal ay jeunes sénégalais waxuma la waxtuma sax ay mburuwaa. te benn jeune liggéeyatul ni y de cinq cent jeunes yoo xam ne disparaître nañ te gisuñu dara gisuñu benn disposition bu ñu jël. léegi na lu si am dañu koo gis te ñëpp gis nañ ko moom mooy le président Macky Sall sa à dire que nangu see wax waxu si benn yoon loolu la ñuy dénoncé su jógoon suba suba suba suba ne benn gaal dootul départ te Mbour mun na ko parce que am na ay moyens. loolu nag état moo ko war a def na état bi jóg ñun nag du bàyyi du bàyyi tey du bàyyi ëllëg mais du ñu toog nag di seetaan suñuy frère wala suñuy compagnie ñoo xam ne dañ ñoo dañ ñoo jege trop di dee si géej. office national de formation professionnelle nee nañu mu ngi ci ab mission bu daa bëgg ndaw lu ne mën a am métier. loolee nag euh, dañ koy euh, ngir bu mën a sotti faw ñu jiital ci ay waxtaan yoo xam ne ci anam gan la ñuy jaaralee googule tàggat jagleel ko ndaw ñi ba ñu mën a xeex ñu ni loola la ñuy xeexee immigration clandestine Abdoulaye jaañ ONFP amal benn ndajep sottanteb xalaat ci njaareem ngir saytu bànqaas yi nga xam ne moo soxal askan wi ngir ñu tàggat leen ci osmaan seen di conseiller technique directeur général bu ONFP. atelier bi acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey si ñoom ñoo ñu wax ne tey lii ak lii ak lii mooy métier yi nga xam ne moom la gën soxal nit jigéen ñi ak góor ñi. dinañ ci toftal lijaasa buy firndeel sa man-man. titre bi nag soo ko xoolee benn genre diplôme la boo xam ne ku ko yor rek ko wane dinañ xam ne kii mën na lii mën na lii mën na liggéey bi. jamono yooyu la ñuy dund li nga xam ne mooy mbëkk mi ONFP ne lu ko ñor la. ñu ne xale yi nag soo leen buggee teye foo nga jox leen qualification qualification boobu tam il faut mu méngoog ñoom li bëgg ak li ñu mën loolu nag la tiitre bi di eh, jëriñ. fukki métier la ñu jàpp ci ndaje mi ñu amaloon ngir sottante xalaat eh, ci tàggatu gi jàpp ne lu am solo la ci jox kenn ku ne am xëy ba mu mënal boppam Abdoulaye Dieng Njaarim Zik FM. Abdoulaye Diagne ministre de l'éducation nationale de ci kàddoom daa mel ni dañu sama yoon nekkul ci jàngalekat yi moom seen école privée ak way juru dongo yi sama yoon nekku ci ndax bu fekkee nee na mënut a ci li école privée yi bëgg a fayoo ko élèves yi lu ñu leen jàngalul ni ci Mamadou Moustapha Diagne waxee daanaka mooy dañuy seen yoon nekku ci dañ ko déglu. Amadou Moustapha Diagne bu ministère de l'éducation ministère du travail ministère du commerce mi ngi fa ñun mooy wàllu pédagogie ndax école bi nekk na o norme ndax programme bu officiel na ndax jàngalekat yi ay jàngalekat la yooyu su amul ñu dañuy tëj école waaye nag parents d'élèves yi nga xam dafa jël doomam yóbbu ci école nangoo fay frais d'inscription nangoo aussi fay temps pour chaque mois loolu ministère du ci mën a ndax amul texte pour yoo xam ne jàngal na yoo xam ne dara bon sens mooy permettre koo xam ne defoo dara mënoo daaj ay ay deux mois trois mois de salaire loolu aussi c'est le bon sens encore que école privée yu bëri jox nañ leen euh, trois milliards si subventions muy euh, lu doy waar euh, xëy na daf bëri ñu ko seq muy waaye bu fekkee itam dañoo téye dañoo téye yenn écoles yi nga xam ni mooy document wu élèves yi itam lii la ci wax maanaam xale bi war a am attestation donc de scolarité wala ñu am bulletin de note yow ngeen doo ko joxe loolu bu c'est pas normal kooku moom euh, boo leen ko gisee dañ koy signaler IEF wala IA mu contraindre ko mu mu mu mu joxe ko hmm. ak lu ma ci doon daal je pense que daal nañu nañu continuer waxtaan bi su mënu loolu ah, parents d'élèves nañu organiser wu ah ñu ñu yóbbu yoon def lu su ko yoon attelé leneen ci wàllu xibaar coronavirus euh, ak ni ñu ko commencé démystifier sénégalais yi daanaka dañoo gis ni depuis chiffre yi waa wàññeeku ko ak léegi euh, dañu dellu ci seen euh, doxalin wu njëkk yoo daanaka masque sax takkatuñ ko takk bu am solo gel antiseptique moom itam laalatuñ ko daanaka loolee nag xëy na dañoo commencé am xel mu dal ci tolluwaayu tawat ji ci Sénégal Fatou Lay Mbaye Diop reportage. jamono ji ñuy wax ay lim yu wàññeeku ci wàllu feebar bi di Covid 19 ba tax yenn habitude yi daal di tàmbaleewaat ci diggante ay longante ak i joxante loxo mu mel ni ne feebar bi amatul. ba mu baax kay raxasu daal lenn may boole moom xanaa may jàpp bu mooyee bu ma raxasoo di sama kër la may sangoog yooyu. ñoom ñoo toog ba ci yàgg ñu ne corona bi jeex na tamit gars yi tamit topp ci parce que. soo duggee tata yi day fees dell soo ñëwee ci marché yi tamit ak yooyu nag ñoo far ñoo séqante jàmm dañuy te moo ne de ci ndorteel ga ñu bari ragaloon daanu ñu woon joxe loxo commencement moom daaw mu <laughs> ñëwee dama daan dama laan def moom maa ngi nuyoo maa ngi def lépp ni yéen na Sénégalais yi di ñoom jamono ji bañ nañ ne lii di feebar bi am na waaye ah, man kay xaw ma yëgu ma daana feebar am na man damaa gisul ku feebar dégg rek laa ci am daal. waaye nag ñenn ña ca des ñoom ba léegi ñu ngi fexe rek lépp lu ñu mën ngir respecter li nga xam ne moom mooy mesures yi waaye nag ñu ci bari jàpp ne rek feebar bi moom jeex na fii ci senegal Sénégal. Fatou Lambe Diop maa ngi lay jaajëfal fukki simila ak ñaar moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. tàggat yaram ñu ànd ci ak euh, Baye Mante Mboub salaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. ñu doore ci euh, Bira Sène mooy président CNG bu bees bi. waaw ni ki démb nag lañ ko tabb mu fas yéene nag jiite kuréel gi di CNG ci diiru euh, ñaari at kii nag di Amatar Ba di dikkaat rek ci yan nag mission ñoom ñooy xaar kii di Ibrahima seen ak groupe am moom mi ne nag mu dikkaat tamit ci consultation yi nga xam ne joroon na ko amal ngir nag ñu wutu kii di Alioune Sarr ci bopp CNG bi ñu teewlu ay kàddoom. dañuy wax ci lan mooy rëq-rëq yi lan lañ xam ne bu ñu ko defee dana baax nan la ñuy def ba mu gën a baax yooyu la ñuy waxtaan choix yaakaar la parce que boo tànnee nit da am yaakaar ci moom te di ko ñaanal yàlla sa yaakaar bu mu tas ci moom moo tax ñi ñu fi choisir nii dañuy am yaakaar ci ñoom te xam naa ne am nañu xol xam ne ki yaakaar ci ñoom dinañ xeex ba yaakaar boobu du tas Manga 2 la ñu dénk wàllu bëre simple moom déjà ma ngi wane programme ba mu am. waaw Manga 2 mi nga xam ne moom la ñu dénk nag bëre simple moo ngi wane nag programme bi mu am tamit ñu def seen kéem kattan ba taxawal ab fédération de lutte ni a nag xoolaat yi ni ko noonu managers yi ak yi ñu nekk ab association Manga 2 nag moom ku ko xam xamee ko ci bëre simple bu baax a baax moom ancien roi des arènes mu jàpp ne nag ak yenn wi ak xam-xam bi mu ci am war na ko nag mën a euh, yëmale kanam ñu teewlu kii di Manga 2 oui sas boobu yaakaar naa ne duñ ko attan parce que ministre bi su ma nommé président ma yor wàlla lutte traditionnelle balaa njëkkee làmb avant ma nekk le roi des arènes dëkk bu kon nag suñ ma ko dénkee war na mun a dox war naa dugg ci gox goxaan am na rapport ak làmb parce que moo nekkoon euh, le président du CNG de Kaolack donc euh, organiser na drapeau du chef de l'État foofu ak le CNG organiser ay yeneen làmb foofu kon am na làmb bu baax te ku la ku yaru yaakaar naa ne mun na doxal Hmm. nga leen ci wàllu football ci espoir football comité exécutif bu fédération di def réunion tey. waaw jàppale sax réunion bi nekk démb sax lañ ko amal ay élage démb ah, waaw démb lañ ko amal ba tax na nag ñoom ñu le euh, comité exécutif bu fédération sénégalaise bu football jël ci nag ay ndogal yu bëri ni ki noonu tamit tàmbaliwaat lu jëm ci wàllum championnat bi ni ñaari fan ci weerum euh, janvier gu ñu jëm ni ki noonu tamit jëm nag ci cumul de fonction yi ci diggante ñuy yor équipe nationale yi ak club yi ci leeral ak kii di Soxna Fall ñu jëm ci tere dajale ay fonction lu jëm ci entraîneurs nationaux yi ñoom ñi nga xam ne ñooy rek tàggat équipe nationale yi dañuy am contrat di am salaire looloo tax ñu bañal leen léegi ñuy am beneen fonction d'entraîneur bu dul équipe nationale bi lu ne mel nag ñu ni jël nañ dogal bi waaye dinañ leen may délai trois mois ngir ñi nga xam ne ñoom la concerné ñu mën a rek euh, dakkal lu ni mel bu weesoo loolee comité exécutif bi bokk na ci dogal yi mu jël mooy fexe ba jëmbalaat waaye tam di fay lu jëm ci wàllu management technique bu équipe nationale yi loolee waral mu décidé ni dina rek valider organigramme bu yees bi ko direction technique nationale daal di jox mu jëm ci am directeur technique national waaye am assistant wala assistante Wade am des directions ak ay chefs de département yu compétition senior bu football de jeune bi football féminin ak football spécifique comité exécutif bu fédération sénégalaise de football d'accord ak proposition bu DTN bi nga xam ne dafa bëgg rek ñu fusionner lu jëm ci wàll attelage technique gu équipe nationale u yi ak équipe nationale locale ci wàllu wu ni mel nag jox nañu ko délai ngir rek mu amal proposition ngir ñu mën a indi ay coppite ci wàllu woowee ngir mën ko adapté ak situation bi ñu nekkee assemblée générale élective ko août ba la ñu dëgmal ci noonee maintenir nañu li nga xam ne mooy dox teg saison bu Sénégal ci ñaari fan ci weeru janvier. Alima Sow ci biir élément wu Soxna Fall doon dikkaat nag ci réunion comité exécutif bu fédération sénégalaise bi nga xam ne amaloon nañu ko ni ki démb ci la ñu ndax keppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal Baye Mantou Mbow ñu ko xibaar.